Eh, mais mais li li li boobu solo faut faire texte texte sama tank parce que euh, c'est vrai que piège là mooy bo indiwul rapport ñu condamné la bo indee rapport ñu ne da ngaa recel de dossier de document administratif dans les deux cas tu voilà dans <laughs> les deux cas tu perds c'est ça xam nga c'est c'est une stratégie ouais, mais mais damay naan ñi xamuñu Sénégal kon gis nga Sénégal dafa toll fo xamanteni li bu ba wax ku sentir ku xam réew mi nu mu fi fi yëf toll. Mm-hmm. non do fi nek di wat benen problème. Mm-hmm. et puis c'est trop cousu de fil blanc. Mm-hmm. on top nit ci benn dossier pendant deux ans bëgg ko bàyyi topp ci benen dossier man justice bi lay waxal parce que pouvoir la te dañ nan bon man lima jang première année ci droit parfois les politiciens disent le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques Je suis Top un homme politique pendant trois ans opposition bi di wax justice jël temps de te suñu prof première droit dañ la justice a besoin de deux choses la confiance et la sérénité. Mm-hmm. parce que comme elle est rendue au nom du peuple. Mhm. dañ ko rendre avec beaucoup de sérénité. -hmm. nga justice est moo moo ñu mën a ci situation les hommes politiques ils vont se battre pour quel ku ci un intérêt particulier et personnel da lay jaral mais justice bu ko neexee mu renvoyer dossier euh, Sonko juin 2024. Mhm. am na ci droit Nous leen di da ngeen politique politique mais nous avons leen bàyyi ngeen justice di fa politiquement. Mhm. parce que li qui est dangereux mu ci à avons euh, ñu bu ñu commencé institutions dem ba ku ci nekk jàpp ni boo nekkee pouvoir mën nga sa parce que dossier Mame Mbaye bi mais Mame Mbaye accepté nañ ni rapport am na mais le problème mooy bu Ousmane Sonko génne rapport ñu ne ko recette de document administratif ça c'est clair. Mm. ah oui Mame Mbaye accepté na rapport am mais Mame taxaw na diñ na ko Amadou Ba ne diñ ne Amadou Ba moo bon il a il a il a vraiment Mame moom amul amul amul amul dara lu ñu wax ci loolu. et ki boo lire livre bi rek amul dara lu ñu wax ci loolu maintenant le problème mooy porte plainte wul Birahim bu doon seetal dërëm rek mais même démissionner, na démissionné euh, hmm. premier ministre fait ainsi de suite que le fait que euh, Cheikh Yérim qui euh, livre mais ñu dossier parce qu'en en réalité xam nga gis nga dossier boo qui ci Sonko hmm. Sénégalais perte temps parce qu'on a perdu trop d'énergie. perçu comme de l'acharnement. Mais c'est de l'acharnement parce que dès que nous avons fait le nous avons un choix de quand nous sommes président en 2024. Nous avons en 2019, Karim Doudek candidat, euh, l'autre, Khalifa Doudek candidat. C'est la justice que nous À un moment donné, les Sénégalais, mer nañ fi des fii te on est ñu en 2021 niveau de violence bi a wane wala le ñu peuple yëpp a

tout li commencé mais n'importe politique parce que année bi, li boobu wax onze mois yi xam nga lan la li Charles wax c'est-à-dire pose les vrais débats <coughs> dans ce pays là. debout day mêmes courses course ñu war a njaabal balaa fa balaa balaa ñuy daw les les candidats xool seen programme Boubacar Camara a écrit un excellent livre on n'en parle pas. mais Sonko Adji Sarr après Sonko mais arrêtons c'est-à-dire que les yep dossiers yep justice perdre la face parce que son nekkul ci prison Mamba est nekkul prison Aïssa est nekkul prison Ils n'ont pas liberté mais comme ils ngi seen liberté te dossier est ñoom de mais nañ avons climat parce que mars 2024 rek dossier mm-hmm. mais nous jël chaque fois parce que pour la première fois au Sénégal tay ken xamul kan moy don candidat te lepp c'est le bon vouloir du prince quoi qu'on puisse dire bu mm. président Macky Sall bëggoon ni lepp jeex yi jeex mais Sénégal avec sa démocratie bo demee ba tay assemblée nationale française ñi ci ñuy wax ci Sénégal diko diko diko ko di ko tuutal dafa am yoo xamante ñun tamit ay ay ay ay nawle Macky Sall la quoi tak y a des choses yo xamanteni Sénégal war na dépasser li ñu war a ni homme politique dañu dañoo commencer di wax waxi programme ñi leen di pousser ñi wax waxi livre ñu ñëw ci télé ku ne di wax nan nga bëgg yoré Sénégal parce que instant yi ñu ngi war a exploiter suñuy ressources pétrolières xaalis bi fan lañ koy dugal fan mais on ne parle de rien du tout ñu ngi ci zone boo xamante ni mi ngi tàkk fu nekk kenn xamul fan lañ jëm yow yaa ngi ne Mali fi ñu nekk nii jihadistes yi ci taxaw Guinée Burkina yow Sénégal nga nekk benn îlot de tranquillité yor sa almet mel ni kuy fo moi je me dis que y a une seule chose qui peut rester euh, qui peut régler tout mooy la justice nous ne politique dem na politiquement. mais du ma du pour les combats parce que c'est trop facile aussi. Nous accélérons le dossier avec une célérité boo xamante te boo wax justice non le temps de la justice n'est pas le temps des hommes politiques. C'est aujourd'hui lañ justice son temps n'a rien à voir avec le temps des hommes politiques. mais vous avez à chaque fois un adversaire politique. gis nga dossier bii nii man damaa bëgg théâtre quoi xam nga ndax si théâtre. a théâtre Golbert aaw buuru këram ba mu amee benn euh, ndaw si di def satala gi ndox mu tàng di dàq jabar gis nga troisième femme ba mu ñëw ba mu ñëwee <laughs> non daka ne jeex na rek il faut que waa APR taxaw xeex nag ak candidat boo xamante ni sénégalais yi jàpp nañ ñu pare na pour nekk président mais naa bëree nit mais dañu may takkal ci loxoom takkal takkal ma tànk ma xeex ak moom ça n'a pas de sens mm. sénégalais yi am nañu droit choisir 2019 on a euh, génne nañu waa PDS li ñu waroon tànn génne nañu Khalifa Sall mais bii nag yaa xëyti mu laa ne ñu bàyyi suñu président comme des personnes responsables mais pour dee justice ngi oui oui dem justice nous dem justice non le président bu ne mën def adversaire président bu ne mën def adversaire mais ba changer changé loi en 2021 pour yombal ko léegi bu la tëjee sax 6 mois sursis dootuma la bokk imposé mais xam nga yoy nga def ko changer ko mais c'est trop c'est trop cousu de fil blanc gis nga mën nañoo def lepp ci walu euh, loi et règlement mais un peuple da nga koy déglu un peuple da nga koy déglu te xaw ku dégluwul ah mais sénégalais yi finit ñu toll sa situation yi sénégalais yi toll fii sénégalais yi ne je pense pas que ni waratuñu waratu jouer ci affaire loi règlement pour man nañu may politiciens yi ñu def seen politique fii 2024 politique politicien la la loi Ousmane Sonko rëccul tëjuñu ko Adji Sarr rëccul tëjuñu ko Mame Mbaye rëccul ko quel est le problème ñu xaar ba 2024 après les élections ñu attelé Bon, nga gis d'autre dootul sonn ci atay donc si si ce dossier là est aussi politique parce que moi je me dis que Mambay Mbaye bu doon bu doon bu doon attaqué ne euh, nga livre parce que livre ça reste xam nga wax sax day wax dem mais bind dafa day des mais mais mais le problème mooy euh, mënoo top un homme politique single mais pendant 4 ans non on arrête au Sénégal mais ñu tànn man pour moi au Sénégal nañu bàyyi ñu tànn on est on est majeur on est vacciné nañu bàyyi ñu tànn suñu président bu ñu neex on n'a pas besoin ñu ñu naan kii dem kéem mais c'est c'est c'est vraiment malheureux pour Sénégal. Balla Moussa quelle euh, sortie